mu ne su fekkee ne jigéen ñi jur gone yi dañuy ñu réer a réer xamuñu xàmmeewuñu ah loolu mën nañoo yaakaar ne kon mën nañoo am doom yu baax buñ dee jigéen ñu réer lool xamadi lool xamuñu lu ñu war a jàpp ak lu ñu war a bàyyi ñooñu buñ amee doom doom ya mat naa yaakaaru yiwa doom ya mat naa yaakaar benn njëriña ak it su fekkee ne jigéen ji moom muy yaay ji xës na manqué ba noppi bu amee doom doom ja nàmp manqué googee ca moom ah ndax doom joojee danañ ci yaakaar ak mat ak mat mat na ca ama cosaan day moom daana feeñ lool ca bànqaas ba moo tax nag kon doom ji bu xasee nàmp soow manqué ci yaay ja ak manqué rek lañ cee séentu waaye xëy na waruñ caa séentu ak mat lu may nag xotti baax gu yàlla def fama lil ummahaati ana lu ñeel yaay ya jaxil la ñuy réer xata atay na ba ñu dikkee bi kulli tayyaashil xasaati ci képp ku di moyaa konub aw doj taasha tooy na tayyaash mooy sixatul mubaalaxa bàyyi ko ci taasha tooy na yartey su dana tooy tax sara bi naa tayyaash man laa yusiibu almarma maanaam du jam ba nga xam ne moom lañu bëgg ku ko jam xanaw na yërëm nañu xala radihi ci aji nàmp ja bi xëyri xilimin ci lulul xam fadaaxati sànku xunuwu tilkal mordihaati yërmaandey ñooñee di way nàmpal mu ne xoolal rek yaay yi nga xam ne dañoo umpale umpale ba nga xamee ne buñ amee doom dañ ko yërëm yërëm gu ëpp ba buñ ko teg ci yoon xam nga ku yeewu moom xam-xamee lu mu yërëm-yërëm doom ja awale ko ci yoon kooko sax dana def doom ja loo xam ne ñu defee ne daa soxor mbaa da koo bañ fekk na daa xam ne rek loolaay defar waaye nag ki nga xam ne xamul moom mën naa mu topp yërmandeem ba yàq xale ba du ko yar mu doxe ci rek yàqu benn yoon fekk na da doon feeñal ci moom yërmande ba tegu ko ci aw yoon rek alam nara ndax gisunu fil xisaani ca way rafet ña alxii di ña di ay jongoma xablan ci ak njëkk awaanisa way wéttalee awaanisa day firi way wéttalee di jamxu aanisatin waaye dañuy def nag as sayidatu ñi firee madam muy koo xam ne sëy na toll ci néegub sëy di wax nag al anisatu mademoiselle koo xam ne jotagut a dugg ci néegub sëy awaanisa kaatibaatin ñu di ay bindkat maanaam di ay taalifkat yu jigéen shaahiraatin te di ay waykat mu ne xanaa seetlu woon ne am na ci jongoma yi ñoo xam ne ay ndaw lañu waaye farlu nañu ba jàng bu baax di ay taalifkat di ay waykat sax amee jikko yoo xam ne bis bu ñu amee ay doom rek loolu la ñuy jëmbat ca ñoom di ca séentu nag meññet waxad kaanat nekkoon na nisaawul xaw mi jigéeni nit ña xitman ca bu yàgg wala xitman ca bu jëkk yarux na di gont ilal xoroo bi jëm ca xare ya maxal xusaati ànd ak way xare ñu góor ña yëkkun na danañu nekk xaw nan di ndimmal lahum ñeel leen xalal aadaay ca noon ya wa yodd mut na dañuy bandaas aljuróoxa jam-jam ya addaamiyaati ya di way nàcc mu ne xanaa boo delloo cosaan bu góor ñi masaa jëm ca xare ba jigéen ñi dañu daldi fabu takkaayu bu ñu demee ca fa ñuy xaree ku daanu ci góor ñi ñu jàpp la di la fajal sa yaram kii bu amee gaañu gaañu di ko bandaas di ko faj ak leen dimbali ci lu ñu lekk ak lu ñu naan mel ni daal loolu seen wàll la woon ca xare ya te ay jigéen rek lañu woon wakam lu bare bari sax min hun na ci ñoom man doon na koo xam ne ushirat jàppeefoon na ko wa zaaxat te mu mos xadaabal hóoni mbugaluk doyadi fi asril hudaati ci jàppuk noon ya mu ne jigéen ñooñee sax am na ci ñoo xam ne dañ leen daan jàpp ca xare ba ni ñuy jàppe góor ñi di leen métit aga toroxal fama za darra ana lan lay wàññi ana lu muy wàññi al yawma tey jii lawil tafat naa doonte geesu woon nanu ila aslaafina jëm ci sunu way jiitu baadal tifaatin lenni ak geestu fahum ñoom saaroo doxoon nañu bi nax ji hudan ci yoonu jub wasir naa nun nag nu dox bi min haajit tafarruqi ci yoonu teqalikoo wa shetaati akuk teqalikoo ñoo bokk mu ne defe naa ndey du wàññi dara bu nu geesu woon ñenu jiitu woon seet nañ ànde woon nu roy ca ñoom loolu de defe naa ne buñ ko defoon du wàññi dara ñoom dañu awoon ci yoonu jub te def benn di dimbalante nun nag nu aw ci yoonu tasaaroog teqalikoo rek ak ñàkk dimbalante yaa baxru yow géej gi li muy xaayil naay ma ama temps bu ta ndax sonnoo xajiijun soow rek karrun ak ak fa farrun topp ak daw fa karrun topp ak ak maza taroomu ana lan ngay sàkku wa an naa tasiru ak naka ngay doxe rek laa tastaqiru doo sax day waxante géej gi naa ko waaw xanaa doo sonn di soow di soow rek di daw di ak di daw di ak rek ana loo bëgg foo dox rek jëm di dox rek doo taxaw mukk ka annama fii ka daanaka daa nekk ci yow xalbaani ñaari xol misli kem man xabdun jaam wa xurun ak gor haza kii yaru mu day sàkku firaaran daw min saa ci kii walay sa ma farrunt déet ab dawukaay mu ne ko dangaa mel ne man mel ne ñaari xol dafa nekk ci yow xolub gor ak xolub jaam su ko defee déggoowuñu kee di daw kee kee di daw kee takku ci ne booy daw amoo fooy jëm mën laa daw sa moroom maa ñu géej gi soowee ka ak ka daw ak dawaat rek la mel ne daa am ci biir ñaari safaan yu nekk ci biiram yoo xam ne ñuy xëccoo ci biir te kenn ko mënta déggoog moroom ma te ko mënta daw itam bàyyi moroom ma yaa baxru yow géej gi yaa baxru yow géej gi kon waxal lii ñeel ma xal fii ka ndax dafa nekk ci yow xayrun aw yiw wa charun ak ay géej wax ma rek ndax dangaa amee ñaari safaan yoo xam ne ñoo la tee mën a def tekk rek dal mbaa ngay daw rek di wéy ndax dangaa amee aw yiw amee aw ay yaar yooyu nag di la lëmbaaje ba nga xamee ne doo def rek tekk di wéy wa fii sukkoonika ndax daa nekk ci sag dal am nun ak wóolu wa fii xiyaay jika te nekk ci sag jàqiku dooroon am tiit am fim ci daadika wala dafa nekk ci sag tàlli yusrun ak yomb wa fin xibaadika te nekk sag ngëbu mooy sag banku xosrun ak jafe wa fin xifaadika te nekk ci sag suufe dullun toroxte wa fi irtifaika te nekk sag yëkkatigu faxrun ndam yow wax géej gi naa ko waaw yow léeg-léeg nga dal léeg-léeg nga jeqiku mel ne ku mer léeg-léeg nga tàlli léeg-léeg nga banku léeg-léeg nga suufe léeg-léeg nga yëkkatiku ndax day def na yow boo dalee jàmm la boo riiree tiit la metit la njàqare ndax boo tàllee yomb la boo ngëboo nag banku nag muy ak jafe ndax bu ndox mi wàccee mel nga mel ne ku suufee da di ak waxte ci yow te boo yëkkatikoo nag mel ne kon ndam ak tiitar la ci yow fekk yëpp mbiri géej la wa fii sukkootika ndax daa nekk ci sag noppi xuus nun njàqare wa fii hadirika nekk ci sag bëmb maa nekk ci sag soow bishrun mbég yaa baxroo géej gi yaa baxroo géej gi xul waxal lii ñeel ma xal fii ka ndax daa nekk ci yow xayrun yiw wa charun ak ay boo ne pat mel na ko noppi ndax njàqareel tax a noppi boo dee soow di bëmb ndax mbégtee tax ngay soow ko bëmb géej gi wax ma rek ndax waqaftu taxawoon naa wal laylu te mbir moom guddi ga daajin aji kukk la wal baxru te géej ga karrun ak àkk la wa farrun akuk daw falam yu jib niye te tontuuma baxrun géej walam yu jib niye te tontuuma barrun jéeri waxindamaa shaaba ba nga xamee ne leer na lay lii sama guddi gi shaaba mooy firi bijaaw rek waaye ay badaat tabashiru sabaaxi njëlbeen suba gi tàmbali na wa kaxalati tusngal al ufxa gox ba fajrun fenku fajar samiatu dégg naa nëhran dex yuxan nii muy wayantu naa alkawnu monde bi tayun ak lem la wa nashrun akuk tàllal finnaas yi nekk na ci nit ñi xayrun yiw wa charun ak ay fil baxri nekk na ci géej gi maddun ak tëbb wa jasrun akuk yëkkatiku damaa dem ba guddi mu lëndëm nag ma taxaw noonu di waxante géej gi nii géej gi sax ci nam ma ne rek di àkk ka daw di soow ka dal li may laajte laajte li muy bari bari dégguma tontu géej gi tontuwuma suuf si dend ak moom tontuwuma ba ma taxawee na ba nga xamee ne fajar ñëw na ba guddig la ndëmoon tàmbalee leer nag ma dégg mel ne dex moo may tontu naa ma yàlla moo bindee àdduna gi noonu tàlli ak ñàkk a tàlli géej gi day am maddoog jësru léeg-léeg mu wal ba am lu bokkoon ci suuf si ndox mi agsi ci léeg-léeg nag mu wogu bu la neexee jësurun firee ko googu fil baxari nekk na ci géej ga maddun ak tàlli wa jësurun ak wogu boo demoon ndakaaru tey tam tey dem géej léeg-léeg day am bis nga ñëw am foo xam ne ci suuf si la bokkoon ndox mi wal ba wal ci kaw boo léegi nga gis nag foo xam ne daa bokkoon ci ndox ma géej gi wogu nag ba mel ne foofu bokkutoon ci ndox ma da ko firi ak tayu almawtu annasu alqiyaama waaye mën nga ne itam rek yàlla bindoon adduna bi tëddewul neen day lemu ak a tàlli di yëngutu ak a dal ñaari safaan daal faaw da ci tasi saa yu nekk ci monde bi nit ñi daañu di am aw yiw di amu ay géej gi yàllaa ko bind noonu léeg-léeg mu wal ba ñëw ci kaw suuf si léeg-léeg mu wogu ba am lu bokkoon ca ndox ma te léegi ndox mi wogu na ba mu bokk ci suuf si asayfu été ba fii lu bu naan li na jiib mashruq asayfu été bi aqbala dëgmal si na wan nufoosu te mbir moom bakkan yi tabarramat yokkat nañu wa am maddahunna te lakkal na leen alxayfu tàngaay bu metti wa fii abaahi ci ay diis diisam wala xadd sata song na xarul hawaayi tàngaayu air bi xala hawa nafsin ci bànneex ab bakkan mu haddabat bu di buñ mbugal wa qalbin akub xol taa ihin buy aji gëlëm été moom daa baaxoo ci ñoom tàng lool ne été bi ñëw na bakkan yi bakkan doomi aadama yi tàmbalee xat ndax tàngaayu metti wi tàngaayu metti wi songu bakkan doomi aadama yi bakkan boo gis mu amee metit xolam diggalama ko jaaxle washtaaxati sopp quttaanu shawaati yi way dëkkee tefes ya mujjatan ak wëri porlu mbaa nga ne wëreelu rek yushfaagu def na saafara bi xaa ca moom almafoodu kañu jàngorool ci xol min buraha yi ca tiisam wa tàngaay wi tax na ku dëkkee ci wetu tefes da ngay daal dem ca wetu tefes ka di wëreelu ndax sa xol bi nga xam dafa amoon jàngoro mooy métit yi nga xam ne moo nekkoon ci sa xol nga mën koo faj ci wëreelu bi nga wëreelu foofee ca tefes ya fansil na nga wàcc xalaa lubbanaana ci lubbanaan moo tabi tan mbir mu ngay aji ñeewu bi ci moom tan sil kon nga wàcc alal mawfóor ci la ñu lëwal mi naama yi ci xéewalam nga wa maraxte nga sigire alal mux dolli ci aji naat ja min ak naa fii ci ay wàllam wax midd te nga jublu xamada yaamidu ilal fayyaaxi jëm ci aji yaatu ja wala yaatuwaa kon ba al fayyaax ko firee al xasiibu al waasi fu naat te yaatu min anhaa yi ci ay wàllam mooy ndegam nag été bi ñëw na da nga bëgg fu neex a nekk da ngay fexe ba ñëw rek Liban soo ñëwee sa xol sedd da nga fa fekk xéewal fekk fa béréb yu naata naat te yaatoo yaatoo wan chiq te nga fóon xabirab dooli gëttu garab yi ndéem bukki bay na chihaab yi ci diggante xuram ya wax nam te nga màng rabiyal xanchi lañu gërëmi dund fii jarxaa yi dañu ko daan firee ci ak ndéenéeram boo dee xool nag jarxaaw da koy firee arramlatu ak tayibatu napti maanaam beñ boo xam ne dafa amee gàncax gu teeye teey dafa wax ne fexeel ba ñëw liban rek boo demee ca biir xur ya danga ba gis garab yi baal yoo xam ne garab yu neex xeet lañu nga bànneexu ci xet gu neex ga am fa itam dund bu neex a neex ci beeñ ba nekk foofa in toshtaq ndéem na nga sopp alma ndox ma azulaala ma di am méngët wa wirdahu ak grotam fal kawsaru kawsara alma asoolu ma di muñ melal ne lem saa ixu maa ihi mooy aji neexi ndoxam ma mu ne bu fekkee da ngaa bëgg rek ndox mu sell sell sooy boo ñëw lubb naan da nga fay fekk ndox mu neex a neex mel ne kaw saraga ca àjjana aw toshtaq wala nga sopp al afiya ker yu dëll ya min xu ci moom fa innama afiya wa xilli yiina naka keri xilli yiina min afiya yi bokk na ci ay keram bu tàngaayu méttee nga bëgg rek béréb bu am ker yu dëll yu sedd yu neex a neex ñëwal lubb naan boo ñëwee gis ne ker ya fa nekk day dëll mel ne keri àjjana farshuf na nga ñeer mooy na nga mooju minal mutaraqriqi ci aji lerleri ja alxadabi jay aji neex allasi ja nga xam ne tas foo dana sell alxayaatu dund ga ala misaali safaa yi ci misaalum sellam nga ñeeral maa an am ndox taraa moom na nga gis alxasnaa a jongoma ja wala jigéen ju rafet ja tax sabu muy jortu xiq daxaa caqam ba musirat di wisaareef la li uxoo ay wurusi lu loowam xalaa xas ba ihi ci jàmbaraayam ja ni maase mooy taral xas naawu tax sabu xiq duhaa mel ne alxas naawu jëpp ko def ma foofu bi mu njëkk mel ne xiq da ko boo def mubtada jumla bi ci topp xabar ko waaye ni nu jàngee moo gën a neex a jàngee te doo ci sonn daa wax ne boo bëggee rek ndox mu leer leeri mu sell sell sell da ngay ñëw lubb naan ngay gis ndox moo xam ne daal day leer leeri rafet lool mel ni caq boobu nga xam ne jongoma da ko nas ci wurus lu uloo takk ko ci baatam na caq bay rafeteeg na muy leer leeree noonu la ndox moom di rafete waxum jógal istawil la na nga sàkkoo kerloo minal hajiiri ca njolloor ga bi waa rifin ci aji lëw aji dëll wala ci aji yaatu al arsu joo xam ne garabug al ars wa saf saaf ak saf saaf nasju liwaayihi mooy ràbbuk drapom ba ne boo ñëwee bëgg daw njolloor li njolloor lu tàng li ñëwal rek da nga fa fekk fu yaatoo yaatu fu dëll dëll foo xam ne garab gi arsoog saf saaf ñoo koy keral tiim ko mu neex a féexloo ci tàngaay lool wa asix te nga xarawlu li xëy namatin nasimi ñeel ñuramtug gelaw nooy wa raqiqatan mbir mu mi aji sew wasma te nga déglu xafiifal xaabi riirum gott ba fii asfaihi ca dojam ya xafiif ba delloo sulaas yi ba xafa day firi xafa peeg na waaye buñ ne xafa asheu xafiifan mooy sumi àllahoo sawtun kallazi yakoonu min janaaxayi tair aw talahu binnaar aw muróori réexi fi shajar maanaam buñ déggee dara mu amee kàddu gu riir mel ne picc dee naaw tiim la nga dégg laaf picc mu am kàddu wala sawaray tàkk nga dégg na sawaray tàkk mu am kàddu wala ngelaw li romb ci garab yi nga dégg kàddu gay am ci garab yi loolu moo tudd xafiif moo tax wasma déggal xafiifal xaabi kàddu gott ba fii asfa yi ca dojam ya asfa daa mel ni jamhu safaatin la daa wax ne day am ngelawu nooy wu upp upp gu ndànk gu sedd sedd te du ca boole pënd mbaa dara mais nag na nga déglu ngelaw woowu na muy uppee bay déglu àll bi tam day riir ndànk riir mu neex a neex muy aw ca doja alxamaru weer li cheikh yi najib alxaddaat ida muli at ndeem feesaleef na minal badri ca weer wa alxuyoonu bët ya wahaajat te jaqigu minhu ci moom aw sakkanat wala dal jufoonun ay mbari bët wa aqbala te mu dëgmal fii manasilihi ci ay wàccukaayam moom weer wi intiqaalan ci ak toxu yaxufu dana peeg bihi ca moom mina leeni ci guddi ga jufoonun ay mbar day wax ci mbirum weer wi weer wi su demee mat nga xam ne léegi am nañ fukk guddeeg ñeent boo ko dee xool day mat boobu lay tudd albadru bu ko bët yu xoolee gis mat sëkk leer nañ moo xam nag bët yi koy xool dañoo yëngutu mbaa dañoo dal weer yi moom day mat sëkk rek fees bët yi muy tox nag ci ay manasilam tox gu gaaw a gaaw xariinul ardi aji lëngoo la ak suuf si lay sa wax yëbu du fàddu an xaa wëri suuf si walakin waaye laa yuwaa siluhaa du jokkonteeg moom alxarinu aji lëngoo ja ni yàlla binde suuf si day bul boo xam ne moo war lu ci nekk bul la lu ci nekk di wëndeelu mu ne nag dañoo mel ne ñaar ñu lëngoo ñaar ñu dend waaye duñu laale ya door dina wëndeelu moom weer wi bihaa ak suuf si walakin waaye xiina yeddunoo ci waxtu wa dana ko jege yafirru dana daw falaa yu jiibu du tontu wala yëliinu te du nooy weer wi suuf see ko ëpp loolu gën koo yaatu weer wi tourné ànd ak suuf si waaye nag lu yàgg-yàgg suuf si mënu koo ëpp doole ba yóbbaale ko fakam lu baree bari basamat muñ na li mar aahu ñeel gisam nga suxóorun ay siiñ wakam lu bare bari saalat yol na li mar aahu ñeel gisam nga ci oonun ay sadiiti rongoñ ci oonun nasara bi wax naa alxirqu allazi tajri minhu addumoowu dafa wax ne weer yi mel dafa rafet nit nit xool na ko ba tàyyi tax mu ree muuñ nit xool na ko ba tàyyi ay bëtam di sotti ay rongoñ wa tasfarru dana gel an nujoomu biddiw ya isa tabaddaa ndeen feeñ na kama yasfarru ni ki gele jadul ab jë min xasadin ngir kañaan mu ne bu weer wi xësee feeñ deme ne biddiw yi dañuy puur mel ne kuy añaane weer wi leeraayam bi mel ne rek nit mën naa añaane moroom ma ba boo ne jàkk kanam xam ne moom mi añaane ne kee bi dii nag mën naa am bu weer wi feeñee ñoom itam ñu mel dañoo puur mel ne ku añaane weer wi waqaaka yal na la fegal allahu yàlla kam lu bare bari tuf nii da nga jeexal xuroonan ay maas wala tuf nii te du jeexal mu xayyaaka saxal kanam al xuroonu maas ya day mel ne ku waxanteeg weer wi naa ko yal na la fi yàlla dollee déeg ndax ay maasi maas ay xeeti xeet romb nañ fi jàll bàyyi la fi xam ne yow day mel ne yaa leen jeexal mooy yàgg lu yàgg fekke moo tax ñu génn àdduna yow nag ba tey yaa ngi fi rek wakam lu bare bari tux yi da nga dundal ak valaama lëndëm nga wa anta te yow moytun ku dee nga wakam lu bare bari taaloo da nga kawe ak nu jooma biddiw ya wa anta te yow doonun yaa gën a suufe doonun ak yées nga mooy asfal ci ni ko saraa bi firee mu ne guddi lëndëm yi yaa leen di dundal te fekk ne yow mënesul ne am nga ruu gu fës guñ mën a wax ba tey yaay féete kaw biddi yi maanaam mel ni yaa leen di gën a leer yow la ñuy gën a gis te fekk na biddi yi ci bare bari ñoo la ëpp fuuf ndax an najmu mooy biddi boo xam ne yàlla daa def ci moom leer bu bàyyi ko ci moom du ko tibbe ci leneen te weer yi nag moom amul leer moom ci boppam weer yi ci boppam amul leer goo xam ne moom moo ko moom dëgg-dëgg leeram mi ngi koy jële rek ci jant bi lanaa ñeel nanu fii kulli shahrin ci wépp weer min ko ci yow chakku ndee firi sik sàkk waaye saraa bi da koy firee al yowmu allasi yaxtafi fiihil xamar bis boo xam ne ci la weer wi làqu bis ba weer wi làqu ci weer yi la tudde chekkun walakin waaye lay sa yum xiluhoo du ko muñal al yaqiinu wóolu ga waaye bam nee nag al yowmu ëllësi yaxte fii xamar boole na ci xadamul yaqiini a chekku mooy xadamul yaqiini ñàkk wóolu tuqattaxu def na dagg min ko ci yow anaaqu layaali doqi guddi ya walay sa laxaa te dee di ñeel leen watiinu buumu xol siwal anaami ndare mbindeef yi daa mel ne dafa delloo damiri laxaa ci axnaaqu layaali watiin moom mooy bi ñuy firee buumu xol mooy xirqun fil qalbi yajri minhu addamu li baqiyatil xuruqi xëy na it damir bi ci laxaa mu delloo ko ci siwal anaami wala it walay sa siwal anaami déet ludul mbindeefi laxaa watiin mel ne day wax weer wi naa ko guddi yi buñ doon ay jëmm yu amee ay doq amee ak ruu amee deret ju daw ma xam ne yaay dagg seeni doq turaa def na gis fii ka ci yow albadaatu tàmbalik mbir ma kay fa kaanat naka la amee woon xadiman ca bu jëkk wal fanaaw ak jeex ga mata yëkkoonu kan lay am dafa mel ne yow weer wi daañu xamee ci yow ni monde bi tàmbale woon ak ni monde bi mujjee waxal yóbbu xaa ndax dana des albu joodu bindee fi bila fanaa in jullu jeex waxal taafoo ndax dana baal almanoonu dee xani suhu bi walis biddi yi ndax am na dara lu yàlla sàkk lu fi dul jóg ndax biddi yi sax ak mel ne ñoom daañu fi des day mel ne amuñu roo di dee dëgg-dëgg waaye duñu fi des ñoo ngi am roo ñooy ma kawaa inu ay mbindeef lañu lay sa yëddur yooyu du xam assira mbóot ma min xaa ci ñoom siwaa ma ndare ki nga xam ne am ruxoo mbiram kaafun kaaf la wa nuun ak noon te mooy kun rek kaafa noon mooy kun yeneen yëpp rek ay mbindeef lañ yoo xam ne yàlla mi leen sàkk rek moo xam seen dëgg-dëgg xam mboolem seeni mbóot yàlla mi nga xam ne mbiram mi ngi nekk ci kaaf ak nun mooy innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun xanaa bëggee sottal mbir bu coobareem jëmee rek loolu daal di sotti boobu li ma bëgg misaal rek gaawu mbir moom nam na muy gaaw a amee rek yow ko li ma bëgg misaal rek gaawu mbir moom nam na muy gaaw a amee rek gannaaw ba dañoo jàll ci fa ñu wonee yéen ñi defaree ci weñ gu ñuul yooyu nag nee na waa réew mi amuñ ci avancement bu gaaw a gaaw waaye gis nañ ne am nañ ci yokkute ñu nga cey jëm kanam jëm kanam goo xam ne boo ko làmbee daj ko xàmmee ko bu baax a baax ñu jàll nag ci njëgeen ñi wane xeeti fowukaay yi nga xam ne yenn yi dañ koy faral di fooye lool ci bu feet gu réer yi